layla nak ñu am mbégte lool ak eh, contentement ñëw teew fi ci kess kër Sëñ salu di magal guddi yonte bi alayhi wasallam ñu suñu wasi la waxee sëñ mu talla mi tok diko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu yag fi lool mbégte dëgg moy mu yag fi lool te wér sëñ mu talla Mbàkke ndax day moom ku ko xam xam ne eh, daanaka eh, ay waxam bëruul li muy feeñ ci presse bëruul waye foog fekk rek ñu ngi liggéey suñu borom ñun ñi di nak ay tout temps da di jokk ci mom kon duñu am lu mbégte rek ak contentement di sant bu baax a baax a baax. mu ngi sant sëñ Moutalla bu wér a wér di sant waajuram bi di sëñ Saliou ñu ngi koy sant bi ko gërëm di ñaan yàlla yàlla yokk leeram taas na ci barkeem ñun nag dañu am kontaan gu mag a mag moo tax tey mu ñëw fii ci moom ànd ak moom pour màggal guddi gi ndax sama waa kër yi man waa kër ñoom ñëpp ñu ngi sëñ Saliou moo laal seen moo laal loxoom ci seen bopp. macha allah ah ginnaaw bi ñu gëstoo nag gisatuñ ko ah ñu jaadee ñëw nag ci doomam ji. di sëñ Moutala parce que yéen a ànd ak moom rek fu daan fa ak waajuram bi rek ñu fay taxaw ak moom. géwal ba xol ba tilim fa yaasin ku way te ci yonen ma ca baayam araf ya nga way de ngeen ko layo fa yaasin te nana naana waaji ma taggaab way nda warlu ala al faa fa yaasin li leen tax ma dim géwal ak ci batin di way cheikh Bamba mbër mi fi wuute yaasin bismillah abtadi sa way bi man li sanadi wasilati mooy sayidi cheikh Umar Tadaam cheikh Saaliw ana ñi bëgg borom jàppandal borom daaru minam borom alimul xabir borom daare daaru tansiir borom jannatul maxwa sopp cheikh mortadaam sëriñ saaliwa bismillaahi abtadee saa way wi man li sayidi wasilati mooy sanad bi Cheikh Mourtada Cheikh Saliou dalal fii ci Muhammad sëñ Mouhamadou Mourtada mu sëñ Saliou di leen wax ne leen bis bi gis ngeen liggéey bi ni mu demee gamu, mooy ni ngeen ko gisee ndax bi dafa bu ci rek ci lay di kumase di watai watai gamu gi moo tax ni ngeen ko gisee itam ñu ko Euh, ci ay berne ak euh, jàng xasida ak euh, salaatu ala nabi ni ko ku baax ki daan dundalee rek noonu la koy dundale ci berne tamit mbokk taalibeem yëpp moo tax ngeen gis mbokk taalibe yi niñ ko waajalee ci ay berne di ñaanal suñu sang bu tedd bi sëñ Mourtala moom sëriñ Saliou yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér di leen ziar bu baax ci gàmmu gi waaw liggéey bi nag moom noonu la tëddee ñoo nekk ci waañu sëñ bi ñooy gérer gan gan yi nga xam ne ñooy ñëw ci gàmmu sëñ bi xanaa dañoo yàgg sëñ bi rek gis ne li yit lu mu yitte woolo lool du lu ñu jàng du lu ñu wan dañoo gis bëgg-bëgg sëñ bi la rek ñun ñu nekk ci taxaw ci ba yàlla def ñun saa ñun ne kon ni ñu xamee murit yi rek moom xam nañ ne murit moom wax benn ñoo ànd dañuy fas yéene benn gan yi ñëw ci gàmmu gi rek mais dafa di rek bu Serigne Touba woote Serigne Moutala mu Serigne Sali woote dañuy jaral lu ñu mënul woon rek ñu mën ko ci bis bi ndax tey ji boo ñu fekkee fii lii ñu liggéey nii li danga naan traiteur moo ko dressé alors que du traiteur ñun la rek suñu bëgg-bëgg ak suñu pas-pas ak suñu yéene bëgg def lu sëriñ bi bëgg loolu képp la. dañu waxtaanee warteefu soppu yonente bi nga xam ne bu ci ne la ci yow nga yonente bi. boo ko soppee itam loo ciy jëlee ci ay meññant boo ko bëggee soppit doo tañax tañaxu di dem lan mooy màndarga yi nga xam ne bu nee ci yow ku la gis wala ku ko xam dana ne kii sopp na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon am nay feeñ-feeñ feeñ-feeñ yooyu sëriñ dina ci ñëw yaatal ko bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farata la ci ab jullit bu mu mën di doon farata la ndax moom mooy ki nga xam ne moo gën a yell ci jullit bi ci boppam kenn ku nekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën a yey ci sa bopp moo tax sëriñ bi wax ne moom mooy ki nga xam ne ak bëgg ko farata la wax na ne wa salli daban ala man xubbuhu furida mi ngi ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wasallam xéewal mi nga xam ne bëgg ko farata la ci ku man di doon te loolu alxuraanul karim wane na ko ba tey ndax yàlla suñu borom mi ngi wax ñi nekkon màkka jamono bi nga xamé ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba am ñuy gàddaay diko fekki waye am ñu nekk makka ño xamné xeyna tekkaliko ak teqalikook njabot tekkaliko ak seeni alal ak seeni kër lolu xawna dis ci ñom mu leen di wax ne na ngeen xamné kat bu fekké ne seeni baay ak seeni dom ak seeni mbokk ak seeni soxna ak seeni giir ak seeni alal ji ngeen am seeni kër bu fekkee lool moo leen gënal yàlla ak yonenteem gënal leen jihaat ci yoonu yàlla kon na ngeen muñandi ko tuuti rek ba yàlla ñëw ak mbiram te muy fatax màkk loolu di wane ne kon jullit bi yàlla akub yonenteem ñoo ko war a gënal léppam ñoo ko war a gënal boppam ñoo ko war a gënal ay mbokkam ay baayam ay doomam ba ci alal jum am ak lépp lu man di doon moo tax ñu gisoon ca gaañu njëkk ña ci ñi doon gàddaay dañ daan bàyyi seen lépp bàyyi seen alal bàyyi seen i kër bàyyi seen njaboot dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax moo leen gën a lépp euh, jazbul xuloob seen kuuru bopp mawaahibu naafi' seen kuuru bopp muqaddimatul amdaax seen seen seen kuuru bopp ak koo xam ne euh, sëñ bee koy tànn mu jàng euh, barzen ji bi bu ko jàngee benn buntu wala ñaari buntu ci niñ ko tëralee bu ko defee ñëlay yëkkati Eh, waa waa Jazbul Xuloob yëkkati eh, dégg nga buñ noppee waa Mawaahi bu yëkkati buñ noppee waa am ndax yëkkati noonu lañ koy jàppe ba fajar eh, li ci ëpp nag buñ demee ba fajar fajar fajar gi jub day fekk xasaayit yooyu daal di jeex bu ko defee sëñ bi itam yeewi mbooloo mi المسلمين نعم الغريب نعم الغريب نعم الغريب هاي الغريب عمل يا غاب الغدار حيثما كنت يا مهيل فؤادي وروحي بالبصارات ذاتي يعود المسايا جزيل انتهالها مديء الذي ألزمته بصحيح يقيني يقيني درقم درقم اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم الله قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي حي من صلاة وتسليم عطر الله من قبره الكريم بحرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بحرف سسين من صلاة وتسليم عطر الله من قبره الكريم بحرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بحرف سسين من صلاة وتسليم عطر الله من قبره الكريم بحرف بعرف سسيل سرين بنينا مولين مولين سنت تعالوا بيبو ci seen taxawaay ak seen جف ta xam na ne ki tax ngeen di jëf moy Serigne Touba gis na seen jëf yalla na len ko fay ndax nee xam na ne bu yàggul rek lañ jóge ci magal gi ku ci nek def ci la nga man lepp ak la nga manul gannaaw bi yàggatul dara ñu ñew ci gamu gi waye mu melni la ngeen jëfoon da ngeen ko fàtte fasiyene jëf leneen kon taxaway neena rafet na lu mi ngi len ci sante bu baaxa baax. xel koom ci liggéey bi la bok liggéey bi la bok ndax ñafa nek ñun ñi ñu ci bëri suñuy doom ak fa wala suñuy jarbaat wala suñuy rakk sëriñ bi yor leen di leen jàngal alxuraan la war ci ñoom ñëpp ñu koy def kon bu wootee ab liggéey ba nga xam ne lépp ci ñoom la jëmaat war nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax kon ñu xam ni xel koom ji mi ngi dëgmal si jàpp nañ ko incha allahu le 6 décembre bi euh, ajjuma la ñuy départ incha allah fanaan yi bu ñu xëyee gaaw la set ñu tàmbali liggéey bi kon loolu mooy li nga xam ne moo doon euh, kàddu yi ñi ngi jéggalu ñëpp